إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر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 walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illa allah wallahu akbar bismillahi rahmani rahim alhamdulillah alhamdulillahi alladi xalaqa alxalq wa jaala minhum rusula wastafa min arrusuli muhammada wa jaalahu akrama arrusuli wa xayra alalamin wa jaala ummatahu akrama alumam sallallahu alayhi wa ala آله وصحبه وسلم أما بعد فمن إمام الله إلى جميع تلاميذه والمؤمنين رجالا ونساء كبيرا وصغيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعلى أهليكم موجبه أسعركم بأني أسلم عليكم وأسأل عن حالكم خيركم وعافيتكم ودياركم wa uusiikum bil ijtihaadi fi taa'ati llahi wa rasulihi wa ta'kiidi iimaanikum wa ta'aamalu alxayr wa taxaabu inna diina nasiixa amma nasihatu hiya an tansaha lillahi wa rasulih wa kitaabihi wa li a'immati ddin wa li ammati lmuslimin wannasihatu lillahi an tuwaxidah wa taamala bima amar wa tatruka amma naha wa ta'mura annasa bidalik والنصيحة لرسوله أن تؤمن به وتصدقه وتتبعه فيما أمر وتترك عما نهى عنه وتعمل على سنته والنصيحة لكتابه أن تقرأه وتتلوه وتعمل بما فيه والنصيحة لأئمة الدين أن تحبهم وتتبعهم وأن تعينهم على أمر الدين وتأمر الناس بذلك والنصيحة لعامة المسلمين أن تحبهم جميعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يحب المؤمنين ولا يبغض أحدا منهم كما قال صلى الله عليه وسلم حقيقة المؤمن أن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا وتآمروا بالخير وتناهوا عن الشر وأصلحوا بينكم بالمعروف وأوصيكم أن تجعلوا بينكم المحبة فإن أهل الجنة يتحابون ولا تجعلوا بينكم العداوة والبغضاء أنتم كنتم إخوانا يعلموا أن المؤمن أخوه المؤمن كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة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 cant ñel na yàlla yàlla mi nga xamee ne moo bind mbindeef yi dellu def seen biir ay yonent della tànnaat dellu tànnaat ci yonent yooyu muhammad def ko muy gën jaa tedd yonent tey gën ji mbindeef dellu def xeetam moo muy gën jaa tedd xeet ya xéewal ak mucc yàlla na ko yàlla sunu borom ba dotti ci sanga sunu sayidna mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ak ñooñu jaab saabaam ya mboole seen ginnaaw loolu nag tukkee na ci ilimaan yàlla ji seydna mawlaana imaamullahi alayhi salaatu wasalaam kay muhammadu rasulullahi jëm ci mbooleem ay taalubeem ak jullit ñi góor ak jigéen mag ak ndaw nee mucc ak yërmande yàlla ak barkeem yàlla na dotteeku ci yéen dotteeku ci seeni jaboot nee li waral xutba yi mooy xanaa di leen yëgal ne man de seydina limaamullah di maa ngi leen di nuyu di laaj seeni mbir seen yiw ak seen jàmm ak seeni kër mu ne dellu di leen denkaat nag ngeen farlu ci toppa yàlla ak ab yonentaam te ngeen sax ci feddali seen ngëm te ngeen di jëfanlante ci aw yiw te ngeen soppante ndax diine kat laayante biir la laaye biir nag mooy nga laaye biir ñeel yàlla ak ab yonentaam ak téeréem ba di alxuraan ak kilifay diine yi ak mbooleem jullit ñi lay biir ñeel yàlla mooy nga wéetal ka yàlla kenn la ci lépp wéetal sunu borom nag kenn du ko tënk dañu koy tinki maanaam doo ko wéetal ci lii bokkaale ko ca yàlla da koy wéetal ci lépp ginnaaw boo ko wéetalee ci lépp xam ne amul nawle amul bokkaale amul dennandoo ginnaaw loolu ngay door a doon ak jullit nee ne nag muy door a wax ak yow ngay jëfe nag ca lamu la digal bàyyi yamu lay tere te nag bu ko yamale ci sa bopp rek sanga bu tedd ba sayyidnaa mawlaana imaamullah alayhi salaatu wasalaam wax na ne ginnaaw boo ko defee ci sa bopp na nga ëlbatiku digal nit ñi ca loola nga doon def ci lu baax te sa borom digal la ko mooy nga sax ci ndigal moytu tere ya nee nag laay biir ñeel yonentaam ba mooy sallallahu mooy nga gëm ka ba mu wootee nga gëm ka ginnaaw bi nga ko uyoo lépp lu la xibaare nga dëggal ka te bul yem foofu nag topp ka ci li nga xam ne moom la lay digal bàyyil li nga xamee ne moom la lay tere moom sallallahu alayhi na nga sax itam ci jëfe sunnaam moom sallallahu alayhi sax ca nee na nag laayante biir ñeel téere ba di alquran nag mooy nga sax di ko jàng di ko durus ak di ko setantal waaye du du du yem ci loolu waaye nag ngay jëfe la ca biir téere ba téere bi dooy rek nga di ko jàng ak di ko setantal déedéet waaye dil jëfe la ca biir lépp loo ci jàng na feeñ itam ci sa jëf nee na biir nag ñeel kilifa yi diine yi mooy nga soppaleen ñoom ñëpp ginnaaw boo leen soppee nga toppaleen ca la nga xam ne moom lañ lay digal ndéem lañu lay digal maaruuf la maanaam dëppoo na ak li nga xam ne moom la sama borom ba subhanahu wa taala digle lépp lu la kilifa diine digal mu dëppoog li yàlla digle ak ab yonentaam defal lépp lu la digal dëppoowul ak li yàlla digle ak ab yonentaam bàyyil te xam ne ki jar a topp jar diglu mooy suñu borom subhanahu wa taala képp koo xam ne juuyoo nga ak moom loo mën a wax ak noo mën a toll ak foo mën a nekk la ngay wax day du ñu la ca topp comme loola juuyoo na ak yàlla wax ak ab yonentaam ku def loola nag ala kulli xaal toppa ko sa bakkan toppa sa bànneex ëllëg loo dajeel nga xam ne yaa ko fa jiitaloon kon nag kilifa yi diine yooyu ndéem ñu ngi tënk seen bopp ci digle yàlla subhaanahu wa taala tënk seen bopp ci ay tereem di ko moytu ëlbëtëku nag di jëfe ñoom bu boobaa na nga leen ëppal cofeel googu waaye nanga leen topp te itam lépp loo xamee ne mu ngi aju ci mbiri diine yanab diine la na leen ca jàppale mbiru diine la la wax bu génnee diine nag danuy xool ndax lu dagan la wala du dag du lu dagan bu daganee yaay tànn jàppale ko ca wala doo ko ca jàppale bu daganul nag araam nanga di ko ca jàppale waaye nag lii mu wax ci xeeti laay biir ñeel kilifa yi diine yi li mu ca la li mu ca wax léegi mooy nga soppaleen toppaleen jàppale leen dimbali leen seen mbiri diine mu ne bu ko yamale ci yow na nga ko digal ñépp ñu jëfe loola nee na nag laay biir ñeel mbooleem jullit ñi nag mooy nga ëmbal ñépp a cofeel comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe nee ne jullit bi daal day soppa mbooleem jullit yi te du bañ kenn ci ñoom nee ne loolu du màndargam jullit bu baax bañ ay jullit loolu du màndargam jullit bu baax loolu màndargam naafeq la kon jullit daal day sopp jullit ñi te du bañ kenn ci ñoom kem ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe woon ca yoonu démbam nee ne day dëgg-dëgg jullit moom mooy kii nga xamee ni day soppa mbokkam jullitam ni mu soppe boppam lépp loo bëggal sa boppa ci lu baax bëggal ko sa mbokkam jullit lépp loo bëggalul sa boppa ci euh, lépp ëggul ci safaan bañal ka sa mbokkam jullit itam yonent ba sallallahu alayhi wa wax na ne bu leen bañante na ngeen di digleente aw yiw te ngeen di tereente walis lépp lu ñaaw ak i bon bon te ngeen yéwénal seen diggante ci njëkk Seydina Mawlana imaamullahi alayhi salaatu wasalaam wax na ne maa ngi leen di dénk ngeen def seen diggante cofeel jëmbat leen seen diggante cofeel nee ne nag àjjana day dañuy soppante àjjana nag bañante amu fa soppante moo fa am ku bëgg a ci ñoom dangay ngay sopp sa bokkam jullit bu ñu bëggee soppante ah bu ñu bëggee bokk ci waa àjjana dañuy soppante mu ne fa inna ahlal jannati yataxaabuun nee na ñooñ àjjana day dañuy soppante kon nañ ko tamal suñu bopp fii ci àddina balaa alaaxira nee na nag bu leen saxal seen diggante ak nooneel ak mbañeel te ngeen xam ne ay bokk ngeen ma bëgg leen a xamal ngeen xam ne jullit bi daal mbokkam moo di jullit kam ni ko sama borom ba subhanahu wa taala waxee ci alquraanam nee na naka jullit ñi daal ay bokk lañ na ngeen yéwénal diggante bokk gi te ngeen ragal yàlla ndaxte lee ëllëg mu yërëm leen yàlla na sama borom ba allahuma salli ala wa salli wa sallim ala sayyidina wa mawlana muhammadin xaatimi na sama nangul nu bokki jullit ñi loolu lenn la ci dénkaane yu màgg yi nga xam ne moo bàyyeekoo woon ci sang bu tedd bi sayyidina mawlana imaamullahi alayhi salaatu wasalaam kay muhammad rasulullah ñu daan taxaw fii sang yu baax yi fi jiitu woon daa ko jàngatal jullit ñi muy yees saasu ne muy dénkaane goo xamee ne ala kulli xaal dañ ci war di sax di koy yeesalaat lépp lu ñuy def war nañ ko fàttali jullit ñi delloowaat leen si ndax lépp li ñu dénk moom la yàlla dénkaane ci alquranul karim kon nag looloo waral saa yu ñu di ko fàttalinte tey ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq si ni ñu ko jëfe yàlla na nu ko yàlla fayal moom sang bu tedd boobu sallallahu alayhi wa sallam moo ne démboo ak tey ginnaaw loolu nag mbokki jullit ñi tey dafa dokk ci bés yi nga xam ne bisi suñu boroom la subhaanahu wa taala yu màgg yi muy bés yi nga xamee ne ñi nga xam ne ñooy aj ca baytullahi xaraam ñu nga ca seeni nusub di jooxe li nga xam ne mooy seen farata yàlla subhaanahu wa taala dogal leen bés yooyu ñu war ko caa uyu ngir jaamu ko ca jooxe li nga xam ne mooy màndarga màndargay diine yi masa borom ba tëral ci bés yooyu foofa yàlla sunu borom ba subhaanahu wa taala nag sàkkal ñun ña demul lu demee noonu muy iid bi nga xamee na tey mooy iidul adha nga xam ne ñoom itam moom bés bu ñëw boobu bu ñëwee ñoom ci la ñuy rendi seen had yi ñun itam ñu jox ñu lu diiroog loolu muy iidul abha muy bésu tabaski feetu tabaski nga xam ne yàllaa ka tàggatal jullit ñi mu doon nag sunna bu yàgg di sunna seydina mawlana ibrahim alayhi salaatu wa salaam ba nga xamee ne boroomam subhanahu wa taala digaloon na ko mu rendi doomam ja Ismaayil alayhi salaatu wa salaam ci sa boo xam ne mu ngi ci alquranul karim daanaka jullit ñépp dégg nañu ko ak li mu làmb ci li nga xam ne moo di ay waare ci diggante baay ak doom ku ci nekk di nituk yàlla ku ci nekk it di jëfe ndigalal sunu borom subhanahu wa taala te doo ca seet tànn ku ci nekk it muñ la nga xamee ne moom la la sa borom nattoo kii dund na ba am at yamu am cig mage ba dem ba yaakaaratul doom yàlla sama borom ba subhanahu wa taala ci kantanam yàlla andil ko doom ci waxtu woo xam ne dem na ba doon mag moo xamee ne dem na ba naagu doom waaye nag xam na ne kantan suñu borom weesu na foofu yërmande suñu borom weesu na foofu yàlla suma borom ba andil ko doom nga xamee ne day sax ci xolam ndax mu koy door a gis dem ba doom ji dëgër sama borom ba nattoo ka ngir mu rendi doomam jooju loolu bariyaana ku ñu kan nattoo yaakaar naa ne boobu nattu doo ca génn ndax diis gu mu diis ca baay ba ko war a def diis gu mu diis ca doom jam war ja ko war a def waaye la la ca jaaxal mooy ngëm ga baay ba àndal muñ ga baay ba àndal àndal ommatu ga baay ba àndal ngëm ga doom ji àndal muñ ga doom ji àndal wommatu ga doom ji àndal ñoom ñaar ñëpp jëbbalu ci ndigalal borom bi subhaanahu wa taala ginnaaw ba yàlla wane baay ba di ibrahim alayhi salaatu wa salaam ne ko na nga rendi sa doom ndax ru'yal anbiyaa xaq ku ne xam na ne yonente yi lañuy ñuy di ko gis wax la dëgg la looloo tax doom jani ko yaa abati fan maatu umar new ko yow sama baay gisal li nga génte déedéet daf ko ne gisa ah defal li ñu la digal moom xam na ne yonent la muy tëdd yàlla di ko ko wan ndigal la bu jóge ci borom bi subhaanahu wa taala kon nag ci gàttal xissa boobu ëpp na lii ku ne xam na ni xissa bu yéeme la mën nañ caa jële lu bari ci yàlla gënal la lépp gënal la sa bopp gënal la sa ndey gënal la sa baay gënal la sa doom gënal la mbooleem di des ci mbindeef yi feeñ na foofu gaaw uyu yàlla jébbalul yàlla feeñ na foofu sant yàlla ci la mu la wërsëgal xam ne li mu la jox ci moom la jóge ci moom lay dellu saa yi la ko laajee nga jébbal ko ko ci xol bu féex loola feeñ na ci xisaboo kon nag bariyaana lu feeñ ci xisaboo sacrifice ci li gën jege sa bakken ci li nga gën a bëgg ñu laaj la ka nga sacrifier ko te yàlla tax yaakaar naa ne loolu ñépp mënu ko tiim sa doom di ko rendi metti na waaye nag ala kulli xaal lu rëy rëy la waaye ndigalal yàlla moo ko ëpp fuuf allahu akbar la ñu wax yàllaa gën a màgg lépp moo gën a rëy lépp kon nag laay Mamadu loolu ci boppam aha bésëb tey day dekkalaat sunna boobu nga xamee ne ñaari yonente yu tedd yooyu ñoo ko séqoon rawatina bàyyi bañ ko yoonoon mooy Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam waaye nag sanga bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam démb bi mu wootee feeñaat ci àddina saa borom ba digal ko mu dundalaat li nga xamee ne mooy sunna boobu yàlla yoonalaat ko ci moom ci alquranul karim yoonal ko ko ci sunna itam ba léegi ñu continuer di ko def sama borom ba jalla wa ala wax ak moom bismillahi rahmani rahim inna aataynaaka alkawthar fa salli li rabbika wanhar inna shaani aka al abtar sama borom ba jalla wa ala ci saar wu tedd woowu nga xamee ne digg na ko ca déegub kawsar la nga xamee ne moo nekk ci biir ñu bën nga kaa génn ci saar woowu mooy fa salli li rabbika wanhar ñu tudde ko wajhu dalil nga xam ne tey moom la ñuy génne ci biir dalil boobu ñu taxawal mooy salli li rabbik na nga jullil sa borom xanaam salaatul ayit wanhar boo jullee ba noppi nanga nga loj sallallahu alayhi wa foofu sama borom ba digal na ko ko mu dellu ginnaaw moom sallallahu alayhi wa sallam jëfe ko doxaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi kabsayni amlaxayni aqranayni zabaxahuma bi yadihi wa samma wa kabbar wa wadaa rijlahu ala sifaaxihima ci xadiisu anas ibnu malik radiallahu anhu nee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tabaskeewoon na de ci ñaari kuy waaw ñaari kuy yoo xam ne yu weex lañ waaye dañu toj ñuul maanaam ay ñuul ñuul ñu nga ca nee ne moo leen rendi ci loxal boppam nee ne itam mu ubba ko turu yàlla dal di kàbbar bismillaahi allahu akbar jël tànkam ba dal di koy teg ca seen ndoddee maanaam ca weti xar ma xar mu ci nekk mu jël tànkam teg ka ca wet ga ca wetu baat ba maanaam a sifaa mooy jaanib kon li nga xamee ne mooy sunnaam sallallahu alayhi wa sallam sunna sumu jëfe la oo ci nit ñi kazalika na ko noonu ibnu omar wax na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax na Medina di tabaski fukki at mu tegale di ko tabaski ba boroomam jël ko sallallahu alayhi wa kon nag moom ci boppam noonu la ko dundale noonu la ñu soññee ñu dundal ko waaye itam ñu sellal jaamu gu mel noonu qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamina la sharika la waxal ne sama julli gu mu mën a doon wa nusuki ak samak rendi wa mahyaaya sama dundoo maati samak dee lépp lillahi rabbil alamin ñeel na yàlla rabbul alamin kay borom bi defi la sharika la amul bokkaale kon lii ci bésëb tey ñu a def bu ñu si dugal lu bokkul ndax dey yàq yéene ji te yéene ji bu xësee yàqu sama borom ba delloonu ko maa umiru illa li yaabudullaha muxlisina lahu diin ba fa wax ji jeexe kon nag sellal googu nañ ko ci def te moytu lépp lu koy lëxal moytu aada yoo xamee ne yàlla suñu borom ba yoonalu ko ñu dugal ko ci bés bii ak ci sunu rendi at yu mel noonu ginnaaw loolu sanga bu tedd ba bésub arafaat la taxawoon dal wax na i'lamu annama amwaalakum wa a'raadakum i'lamu annama dimaa'akum wa amwaalakum wa a'raadakum xaraamun alaykum ka xurmati yawmikum haada fii shahrikum haada fii baladikum haada nee ne bésab arafa la taxoon di wax sa xutbaam bu yaatu woobu na ngeen xam ne seeni deret seeni deret yéen jullit ñi nama dimaakum wa kum seeni alal wa aaraadakum seeni der xaraamun aleykum na xam ne araam na seen diggante tuurante deret araam na seen diggante jëlante alal araam na seen diggante ci lu dul yoon tilimalante ay der araam na seen diggante ci wax ak jëf ka xurmati yawmikum haza ni mu araam ci seen bésëb tey bii muy bésëb arafa fii sahrikum haza ci seen weeru tey wii nee itam fii baladikum haza si seen dëkk bi noonu lay araame ci yéen ba yowmal xiyaama looloo tax dañu war a ñoŋal sunuy deret ñoŋal sunuy alal maanaam sunuy bakken sunuy alal sunu xel sunuy der sunuy askan loolu lépp lislaam dafa ñëw ngir aar ko ñu tuddee ak daruriyaatul xams mu doon ñu ko fàttali bi ñu fi jógee na doon nañu waxtaane ci lu jëm ci wàllu der ngir néeg yi daanaka yàqu na jalgati gi bari na tappalekat yi bari nañ kaccoor yi bari nañ saay-saay yi bari nañ nit ñi tàggoo nañ seen sago tàggoog seen ngëm ñu ngi dugg ci néeg sëy yi di yàq-yàq mu réerée lu bari wax nañ ko fii jàppanaa ne ci korite bi amaana bu waxtu bu mayee ñu di si delluwaat ndax bésab tey dafa dafa xat waaye nag am na leneen loo xamee ne laxasu na ci bunte boobu ci tappalekat yi nga xamee ne ñu ngi ci biir néeg sëy jàmbur di yàq tanga sanga bu tedd bi sallallahu alayhi wa waxoon na ca téeréem ba de wal mar'atu tusalu an bayti zawjiha wa firaasiha du lan lañ waxoon dañu koy laaj ci néeg jëkkëram ak lal jëkkëram na ko ott na ko aar na aar boppam aar néeg ba aar lal ba aar alal ja ba nga xamee ne day ñoŋ du may benn kàccoor muy teg ab tànkam ca bunt ba waxuma laa nag muy toog sab lalam kon nag bokk na ci li nga xamee ne mbokki jullit ñi lunt na tey ñu di ko def mu bari lool ci sunu biir la ca tëj boppa jaaxal la mooy ñiy faral di may lan moo tax du ñu koy gëstu lan moo tax du ñu koy lijjanti mooy gaañi bariyaana tey jigéen du ñuy ñëw di ko takk mu nekk ci biir iddam subhaanallah mbokki jullit bi idda yàlla moo ko dogal ñu war ko koo jaamoo dafa bokk bi nag umuri taabudiya ngir ñoŋal li nga xamee ne mooy àqu borom kër gi ngir ñoŋal la desoon ca sëy ba desit ya ngirit ñu xam ndax biiru ndaw si mucc na walla déet ngir ñu moytu itam li nga xamee ne mooy jaxasooy askan yi ñu war ko koo jaamoo comme ni ñu koy jaamoo ci julli comme ni ñu koy jaamoo ci koor comme ni ñu koy jaamoo ci yeneen mbir yi yàlla sama borom mi dogal sëy moo dogal ko teqalakoo ko nag dina am ci ñaari anam dina am ci waa ji faatu dina amit ci passé waaye dina amit ci ñu tas sëy bi muy fas waaye lu mu ci mën a doon nga xamee ne sëy la boo xam ne idda war na ca bu boobaa bu ca yàlla dogalee idda donte idda yi uute nañu bokkuñ ñii ay weer lañuy ñuy jàpp idda ñii ay laab lañuy ñuy idda kon idda yooyu yépp yàllaa ko moom moo ko wàccee ñi nga xam ne ñooy tappale di dugg ci néeg sëy jàngul wala jigéen ñiy tappale nga xam ne dinañu gis góor goo xam ne yaakaare nañu ko alal wala boog boroom diine la wala boog boroomu askan la wala lu mu mën a doon ñu dal di ubbi bunta jalgati bunta boobu dal jalgati li nga xam ne mooy idda te xam ngeen ne idda saa borom ba da ko ormaal mbokki jullit ñi lu mu ormaal la looloo tax bu fekkee ni waa ji fase na soxnaam sama borom ba nee na bu ñu leen génne fa ñu war a jàpp idda bu ñu génne te bu ñu leen génne nañu toog ba idda ba mat kon loola dalay wannal daf la bëgg a jàngal ne la loolu dañ ko war a ar dañ ko war a ñoŋal sama borom ba subhanahu wa waaw kon loolu tey jii ci sunu biir sunu société ku ne xam na ne mu ngi toj lu bare ngi fi loo xamee ne duñu ko wax si biti ah waxkat yi duñ ko wax waaraatekat yi duñ ko wax waaye ñu ngi gis ay doom aadama di dog iddam jàmbur di takk jigéen ci biir iddam te loolu dafa bokk min kabaa'iri zunub bàkkaar yi gën a mag ci bàkkaar yi ci la bokk nañu ko xamee noonu donte ñun toppatoowuñu ko sëykat yi sax jéemu ñoo xam lan mooy idda te ku jigéen ki koy jàpp war na koo xam kilifaam gi koy denc war na koo xam jigéen ñi bu ñu xoolee ci seen idda mën nañ leen a tàggale séddale leen ñett jigéen joo xamee ne mën nañoo ñëw labat leen labat leen leeralal leen labat gi maanaam dama la bëgg a takk mu leer wala boog nga gaaralal leen labat googu maanaam man kat temps yi damay ut soxna bu dee soxna si jàng arab nga dee dama bëgg soxna si jàng arab loolu moo di gaaral loolu nag dagan na ca sunu boroom bu fekkee ne ku jigéen ki ak nekkul ci buum ak jàmbur bu fekkee ne ku jigéen ki nekkul ci idda ñaar yooyu dañ ko ciy tënk maanaam dina dagan ndéem ku jigéen ki bokkul ci ñi yàlla tere nga tëkkaleen man ngaa ñëw nga labat ko ci leeral walla ci gaaral ndéem nekkul ci buum ak jàmbur na leer déem nekkul ci iddab jàmbur na lee am ci jigéen ñoo xamee ne mën nañu leen dagan na nga gaaralal leen ah li nga xamee ne moo di labat gaaral waaye araam na nga leeralal leen ak labat ndax mbooleem jigéen ñi ci ni ñuy jàppe idda jigéen ñépp la yàlla araamal nga fekk leen ci seen biin idda di leen wax waxi sëy te loolu du dara ci ñun mu leer nañ ah dinaa yónnee samay kilifa ñu ñaan si la loolu labat gu leer la waaw mooy alxitba sariixa moo di labat gu leer nañ nga wax ka muy wax gu leer bi ci des nag taarif la tudd mooy nga gaaral ka comme jigéen joo xamee ne dafa jàng alquran nekk ci iddam nga jëw nekk ah ma day temps yëpp damay wër soxna su jàng alquran ndax mu di ma jàngal di ma dalal waaw mën nañ caa dégg ne da ko bëgg labat waaye mën nañ caa dégg leneen loolu mooy gaaral loolu nag ci benn mbir la dagan walla boog ñaar mooy ki nga xamee ne jëkkëram génn na àddina waaw jëkkëram génn na àddina kooku sama boroom ci alquran yaxal na ne ah may naa leen ngeen gaaralal leen ak labat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 maanaam iddatul wafa nee na ngeen ñëw gaaralal ka nag ak labat maanaam man maay diw doomi diw wala temps yëpp maa ngi wër soxna wala temps yëpp maa ngi wër soxna si jàng alxuraan wala yu mel noonu loolu mooy gaaral mu ne dagan na wala bàyyi ma xel bu fekkee ne idda bi jeex na yooyu ak yu demee ki noonu moo di gaaral sama borom ba daganal na waaye nag ah bu leen kenn dig secret wala tuwaa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan maaruufa maanaam bu sekkere boobu muy wax mooy leeralal kaka dinaa yónni samay kilifa ñu jël si la ñu ñaan si la nee ne loolu bu leen ko ak ñoom lu dul ngeen wax wax ju jaadu mooy gaaral boobu may naa leen ko mu ne nag wala taazimu uqdata nikaaxi xata yabluxa alkitaab ajala nee ne nag bu leen dogu mukk moytu leen bàkkaar bu mag la mbugal mu rëy mu ngi leen ciy xaar ngeen dogu fas sëy ba te idda ba jeexul xataa yabluxal kitaabu ajala ñeenti weer fukki fan na jeex ñetti weer na jeex ñetti laab na jeex bu dee ëmbale na wasin bu kenn dogu li nga xamee ne maye la ci biir idda loolu moytu leen ka wala taasimu uqdata nikaax xataa yabluxal kitaabu ajala yeneen bi sallallahu alayhi wa bu xam ne ne ka um ku si fii baytiki xatta yablugal kitaabu ajala ba jëkkëram faatoo mu wax ko ka mun ko toogal ci sab néeg ba sa idda jeex takk ñuy door a waxi di la maye kon nag nañu bàyyi xel loolu léegi nag bu fekkee saay-saay bi wala boog bu fekkee ne moo ko tey ñu mën kaa tudde noonu jalgati na comme ni ko tappalekat yi di def tey dugg ci biir idda daldi di labat ci biir idda dal di fasab sëy ci biir idda daldi di jël ndaw si wéet moom ci biir idda ñetti musiba daje si biir idda léegi lan la ci diine ji wax ah maxal ittifaaq am na maxal ixtilaaf am na mbooleem boroom xam-xam yi ijmaa la ñoom ñépp daje nañ ci ne sëy boobu dañu koy tas ca saasa bu ñu ko xamee sa saasa nañ ko tas ca saasa ñu xamee waxtu wuñ ko mën a xamee donte ginnaaw fukki at dañ koy tas ca taxawaay bi sëy booba dañ koy tas amul uute sëy boobu araam na ba yowmal xiyaam amul uute ne sëy boobu araam na waaye boroom xam-xam yi amaana ba fa ñu juuyoo mooy fan mooy ndax ñaar ñooñu nga xamee ne maye nañ leen ci biir idda ndax bu idda ba jeexee bu ñu leen mayee jébbale ndaw si idda ba jeex ndax mën nañoo tàmbaliwaat sëy bi ginnaaw ba ñu ko tasee ah, foofu la uju yoo gën li xew fii ci sunu sew jant bi di ngiróom imam Malik moom la mu wax amaana ba mu laay gën a wax fii mooy ne ñoom day dañu wax ne jigéen ji nga xame ne fekk nga ci biir dam labat ko ci biir dam waxu doyul nga takk ko ci biir addam doyul nga wéet ak moom wéetaayu ñaari way dencante maanaam jaxasoog moom ci blal doyul ñett yooyu képp ku ko def ci sa biir idda nee na sëy boobu dañu koy tas benn waaye seen diggante même bu idda ba jeexee araam na ba yowmal qiyaama araam na ba yowmal qiyaama mënatu leen a ànd yéen ñaar ñooñu mu amalatan lahu bi naqiidi qasdi ñu jëflanteeg moom ci lu uuteeg li mu bëggoon man istaajala shay'an qabla awaani muuqiba bi xirmaanihi képp koo xam ne yàkkamti nga mbir te waxtoom jotul la ñu lay jëkk mbugale mooy ñu xañ la loola mu ngi mel ni ki nga xam ne dafa rey ki mu war a doon ki war a doon ki mu war a doon na nee na kat dama lay may kër sàngam ca almadi walla fële mu dal di yàkkamti dal di koy rey ngir doon na kër googu ñu xañ ko kër googu laa yarisul qaatil yonent sallallahu alayhi wa sallam nee ku rey doo doon na kon nag lu tax mu muamalatan lahu bi naqidi qasdi aha kon ki rey ci tayeef kooku moom mënul doon ki rey ci njuumte kooku moom aha du doon na ca déye joxe waaye mën naa doon na ca alal ja kon nag lii ñoom itam lool la ñu yaxal nee nañu seen diggante araam na ba yowmal qiyaama ña sa des wax nañu leneen kon bu fekkee ne labat na ko ci biir iddam moo xam idday faatu la moo xam idday weer la moo xam idday laap la lu mu ci mën a doon ndax idday weer it idday ku faatu mu ngi ci biir iddi weer moo xam iddab ëmb la bés boo ko ci labatee takk ko ci ñu jébbal la ko ci dañuy tas sëy ba ba noppi seen diggante ñu araamal ko ba yowmal qiyaam loolu mooy gërëm imaam Malik ak euh, riwaayaan Ahmad waqalu Shafii qadim kon loolu boo demee ci téere boobu nga xam ne moom la ñu ooy al muqaddima al azziya bind baa nga fa ñu di ko jàngale ci daara yi mu ngi si yeneen téere wala yajuuzu nikaaxu fi l iddati sawaun kanat iddata wafatin aw talaaq mu ne wa yataabadu tahrimu fiihi bilwati fi liddati aw baadaha wa yaxrumu tasriixu bilxitbati nee ne daganul benn yoon ci jullit bi muy takka jigéen ci biir iddam nee ne loolu araam na nee ne yataabadu tahrim nee ne araame googu day di continuer nag aha bilwati fil idda nee ne ñu jébbal la ndaw si bu ñu la ko xësee jébbal ci pas-pas boobu ñu kafasoon pas-pas bu yàqu boobu nee ne araama gi day continuer seen diggante nee ne moo xam ci biir idda bi la wala ci ginnaaw idda bi mën nañ la ko may mën nga ko labat ñu may la ka waaye nga xaar ba idda ba jeex nga di ko dóore jël ñun la dee benn la bu fekkee ne sëy ba dindiwuñu ko même xaaree ba idda ba jeexit benn rekk la ndax dunduñu woon sëy boobu te sëy ba newu fa sëy nag bu fa newul ah benn atte mënu cee toftaloo kon nag benn nit ki bu fekkee ne labat na ci idda takka ci idda ñu jébbal ko ci idda moo xam jébbal nañ ko ci biir idda moo xam ginnaaw idda ba bu boobaa loola dañu koy araamal ba yowmal qiyaam seen diggante ñoom nag seen cëslaay fa jóge mooy Seydina Omar radiyallahu anhu dafa am ndaw suñu wax Tulayha al Asadiya moom lañu ñu joxoon ki nga xam ne mooy ah Seyd as-Saqafi waaw kon kooku dañ ko kamay ci biir iddam ba ko Omar yëgee dafa tas diggante boobu ba noppi dóor ndaw si ay yar dóor ku góor ki ay yar bi mu defee loolu nag ci la waxee ne ayuma mraatin nakaxat fi iddatiha fa in kaana allazi tazawajaha lam yadxul biha furriqa baynahuma summa kaana al axaru xaatiban min alxutaab wet bu jëkk gaaw ba mu leen dóoree ñoom ñaar dafa taxaw wax ak jullit ñi ne bépp jigéen joo xamee ne mayee nañu la ci sa biirab sëy nee ne sa jëkkër ju bees yooyu ñu la may bu fekkee ne jotuñu la kaa jëppal maanaam jotuñu wéet ak moom jotul wéet ak moom wéetaayu sëy Omar nee ne furriqa baynahuma nañu taggale seen diggante ñoom ñaar nañu tas sëy boobu benn ñaareel bi bu fekkee ne tas ñu sëy bi comme moom waa ji jotul tëdd ak ndaw si mu ne bu boobaa nag bu idda ba jeexee na bokk ci ñuy labat bu ko neexee gënu cee yey kenn waaw ñaareel bi nag mooy bii ñuy wax nii mu ne wa in kaana al axaru daxala biha mu ne furriqa baynahuma bu jëkk bi dafa ne furriqa baynahuma summa ctaddat baqiyata iddatiha min al awal summa kaana al axaru xaatiban min al xutaab maanaam bu ñu mayee jigéen te jébbalewuñu ko ci biir iddam ñetti jéego la nañu leen tàggale maanaam nañu tas sëy ba ndaw si na mottali li desoon ci iddab jëkkër ji jëkkër ji ñaari weer la am dal di tappale ñu maye ka xam nga dese na wenn weer bu fekkee ne ñetti weer la waroon a jàppa idda ñaari laab la am di tappale ñu maye ka dese woon na benn laab dafa ëmboon di ko làq woo ci dëggul kon loolu nee na na mottali li desoon ci iddaam ñetteel bi nag waaju bees ji dal di bokk ci labatkat yi bu ko neexee kaña ñu ne bu fekkee ne jébbaluñu ñaareelu pàcc bi nag mu ne wa in kaana al axaru daxala biha ñaata moo ci war ñeenti mbir mu ne furriqa baynahuma nañu taggale seen diggante nañ tas sëy boobu summa summa taddat baqiyata iddatiha min al ñaareel bi mooy na mottali iddaam ci jëkkëram ju jëkk ji ñaari weer la amoon dal di koy bàyyi na dem iddawaat benn weer comme ñaari laab la woon na dem dolli si benn ak laab kon nag na mottali idaam comme dafa ëmboon na dem ba wasin waaw ndax ëmb sax ku ne xam na ne araam na ci lislaam ñu di si takk jigéen sang bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam nee ne laa tuutaul xaamilu xatta tada nee ku ëmb kenn du tëdd ak yow feek imbiwoo xanaa sa jëkkër waaye keneen déedéet mu ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fala yasqiyanna maahu zara xayrihim nee na képp gëm yàlla ak bés pénc ma bul nàndal sam ndox bu ko nàndal si too mbayam jàmbur mooy bul fekk jigéen joo xam ne dafa yor ëpp ëmb moo xam sib sëy la ko jële moo xam ci leneen la ko jële mu ne bul dem di tëdd ak moom bu dee njaaloo ki njaaloo ak ki njaaloowul moo ci am bu dee sëy ki kii sëy boroom sëy bi moom mën na loolu waaye bu dul keneen bu dee beneen beneen waay boo xam ne ñëw na tagg manu manu lool waaw njaaloo moom ñuy dégg ñu naan dafa war di jege ki ka ki ka defoon ba mu wesin musiba la loolu du waxi dara seytaane moo leen di gëm loo loolu di ko askane ci xam-xam loolu du xam-xam kon nag Seydina Omar nee na bu fekkee ne waa ji jébbal nañ ko maanaam jëkkër ju bees ji jébbal nañ ko ndaw si si biir iddaam nee na furiqa baynahuma nañ leen tàggale ñoom ñaar ñaareel bi mooy summa taddat baqiyata iddatiha min al awal ndaw si na mottali li desoon si jëkkëram a idda jëkkëram bi ko jëkkoon a takk te texale ko am moo xam dafa faatu moo xam de na mottali idda booba ñetteel bi comme waa ji jaxasoo na ak moom summa taddat min al axar bu paree ci ku jëkk gi léegi na jàppal idda ku mujj kii kooku nag moom lañ tudde istibra mooy day laaplu mook idda ñoo niroo waaye ndox mu yàqu la moo tax kazalika naka noonu fa mu mujje nag mooy summa laa yajtamiaani abada mu ne ginnaaw jéego yooyu yépp bu ngeen leen tàggalee tas sëy ba ndaw si mottali li desoon si iddaam si jëkkër ji jëkkër ja mottali iddaam si jëkkër ju mujj ji ndax tëdd na ak moom ba noppi aha mu ne summa laa yajtamiaani abada ginnaaw loolu ñoom ñaar mënatuñoo sëy abadan li des ci seen dund kon nag loolu atte la boo xamee ne atte bu diis la atte lislaam la itam ndax ci moom moomu la jege donte am na ci leneen ci boroom xam-xam ñu wax lu uuteeg loolu waaye ngir artu ci suñu bopp artu ci nit ñi ñu moytu di dugg si néeg seey jàmbur di jalgati di toggoo ay baggaar yu màgge noonu ndax bii passé itam déggoon ngeen ah laysa minna man xabbama imra'atan ala zawjiha aw abdan ala sayyidi bokkul ci ñun képp koo xam ne dugg nga si néeg sayu jàmbur di diggante boobu diggante jëkkër ak jabaram di war di yàq diggante boobu ngir mën a la labat ndaw si ngir mën koo takk yal na nu yàlla jubal yal na nu yàlla teg ci siraatal mustaqim musal nu ci jalgati musal si jur njaaj musal ñu si tappale ndax bàkkaar yu barikat kat mbokki jullit ñi ci foofu lay jóge rawatina nag jabari jàmbur ndax dégg ngeen wal muxsanaatu mina nisaa ñi nga xamee ne ñoo nekk ci buum ak sëy yàlla araamal na kenn kuy wax ñoom lu bokk ci sëy feek ñu ngi ci buum googu waaw min al muharramat tahriman mu mu mu aqatan ah day bokk si yàlla araamal utal ko àq kon nag yal na nu yàlla defal jàmm yal na nu yàlla tënk ci ay ndigalam musal nu ci ay tereem ñu xoolaat néeg yi mayekat yi mayekat yi si Sénégal yàkkamti nañu ni ñuy mayee ñu ci bari du noonu maye goo xam ne léeg-léeg doo xam ci ki ngay maye dara seede soo xam ne doo xam si ki ngay seede dara bu ngeen dajoon si mbedd mënoo kaa xam ne kon yooyu mooy indi yu mel nii surtout jigéen ju sëy ba noppi bala nga kaa maye na nga teey jigéen ju sëyagul sax noonu kon nag nañu ñoŋal néegi sëy yi tey jikko yu ñaaw yi ñuy gis yu si baree bari yàlla moo xam waaye néegi sëy léeg-léeg bu sa jalgati gi am ci néegi sëy yi léeg-léeg waxuma toujours de waaye léeg-léeg mu ngi rax ci jukko yu ñaaw yi yal na nu yàlla teg ci siraatul mustaqim yal na nu yàlla nangul yal na yàlla sama borom ba teggil nu tiis wi ñu nekk muy mbas mi nga xam ne tey mu ngi yokkuwaat yàlla mën na koo delloo yal na nu ko yàlla dellool jëleel ñu ko fi si jàmm ñu bañ di ko ŋàññe ma fàttalikuwaat ñu bañ di ŋàññe mbas mi li nga toog di ko ŋàññe ñaanal yàlla jële ko fi nga am ci aw yiw ah te bu ko yàlla nangoon ñun ñëpp ñu jariñoo ko yàlla suñu borom ba subhanahu wa taala bàyyil nu fi suñu xalif Seydi Abdallah njaboot ak Seydina Ali am ak xalifa yi lislaam bi yëpp yàlla na nu yàlla defal jàmm rabbana atina fi dunya hasana fi al-akhirati hasana wa qina azaban nar ya rabbi allah ya hayyu ya qayyum ya man ya samatu wa ardi ya zati la ilaha illa hurmati la ilaha illa allah muhammadu rasulullah ban toog leen toog leen toog leen. sang bi ñu ngi amati mbégte lool. ñu ngi lay ziar. di am kontante lool. ndax damay wax ni ni saa ñu dajee fi rek. ku fi jóge rek mbégte ngay yóbbu. xam-xam it ngay yóbbu kon yàlla na la fi yàlla bàyyi ba ca kanam a kanam a yàlla may la wér ak tal ak fekke sang bi nag nee na kàddu yu gàtt rek muy kàddu ngërëmaate rek jële ko ci ay